wal xuslu cangaay la li du xooli màkkata ngir dugg màkka mustahab lu ñu sopp la kon sangu ngir boo dee bëgg a dugg màkka lu ñu sopp la wal jamhu boole ga laylatul matar ci guddik taw taxfifun ak wayefal la waqad fa'alahu defoon na ko alxulafa way wuute ya arrachiduna ñi way jub maanaam boole timis ak gee bu fekkee asamaan si day taw baaw mel noo xam ne su ko mosaa mel daana taw wax nañ ko ci gannaaw boole timis ak gee noonu ñu ko waxee lu ñu jàpp ndal la lu ñu maye la bu di woyofal ndax taayee dem di julli siwaat gee ci taw beeg yu demee noonu wal jamxu boole ga bi xarafata ci arafa wala mustalifati ak mustalifa sunnat nu sunna la waajibat nu suñu feddali boole ga ñuy boole tisbaar takkusaan ci bisu arafa ci waxtu wa tisbaar jote ak boole ga ñu boole timis ak gee ca mustalifa ci guddi gañ bàyyi ko arafa ñëw mustalifa yaari boole yooyu bu ci nekk rek sunna la wa jamxul musaafiri boole aji tukki ja fii jiit ci sëyri ci tarab dox ba ruxsatun ak yolomal la koo xam day tukki dañ koy may mu mën a boole yaari julli bokk waxtu tisbaar ak takkusaan mbaa timis ak gee ca nañ ko xewoon ci gannaaw bañ fa tolloo leeraloon nañ ko xeetu boole yi demee noone ak yombal la ak weefal la buñ defal aji tukki ja wa jamxul maridi boole aji tawat ja yaxaaf yaxaafu mbir moom dana ragal ay yuux la ba bu dee fi not ko xalaa xaqal yi ci xelam tax yifun ak weefal la ba tey nee na bu julli gu njëkk gi jotee mel ne tisbaar nga ragal ne julli ñaaral ga ni ki takkusaan dalay fekk ngay xëm doo ànd ak sago dañ lay may nga daal di boole fi saasa boo jullee tisbaar teg ci takkusaan wala ak yombal la ak woyofal la waaye nag ba àggee ci takkusaan te la nga yaakaaroon dalu la kon ñu digal la nga baamu takkusaan jooju nga jiitaloon te ragal xamu ko waraloon te loola dikkalu la waka saalika naka noonee jam xuxoo ak booleem li axil latin ngir jàngoro bi ju nekk ci moom te yokkuwoon tey nekk zaalika loolee arfaqa di gën a ñëwante bi ci moom ba tey li ñu wax booleeg melo te loolu mooy bu julli ko jëkk jotee nga bañ koo julli fi saasa bàyyi ba ci mujj waxtoom nga daal di koy waajal julli ko boo noppee julli ñaaral ga jot nga teg ko ca ni ki tisbaar jot nga bañ a julli fa saasa bàyyi ba takkusaan jege nga daal di waaj julli tisbaar ci waxtoom ba ci mujj muxtaaram takkusaan jot nga teg ko ca benn yoon fi saasa loolu ak jàpp ndal la ndax benn yoon nga jóge benn yoon nga waaje daal julleen doo yaar yëpp te kenn ku ne dem na ci waxtoom loolu nag boo ko defee yow te fekk jàngoro waral ko du tey ñu bindal la tuyaaba yi ku teel a na julli julli ku jëkk ci waxtoom ku dara dalul nag sañ na ko waaye su boobaa du am tuyaaba yi ku teel a na julli julli ku jëkk ci waxtoom wal fitru dog fi safari ci ab tukki ruxsatun ak yolomal la soo dee tukki te sart yi daje ja daañu la may nga bañ a woor loola ak jàpp ndal la wal iqsaaru wàññi julli ga fii ca tukki ba waajibun aji war la waruk sunna boo dee tukki ca sarte daje ca nga wàññi julli julli gu daa mat ñeent nga def ko ñaar rek loolu kat sunna la suñu fonk nga xam ne wàññi ga yooyu jamono moo gën matal ga war ak xatal fajiri ñaar rakkay fajar mi nar raxaay bi bokk na ci xemmem téef ya nee nañu ñaar rakkay fajar moom dong la fiqhu malik am ci raxibatu raxibatu nag mooy loo xam ne moo ëpp doole xeet naafile kese yi tàggul nag ci sunna wala mooy raxibatu moom la nee na ñaar raaka fajar rek la ci yoon Maalik am waxile waxees na ne mi ne sunna ni bokk na ci sunna yi waaye li mu njëkk wax rek moo dëgër mooy raxibatu la waaye bokkul ci sunna yi wasalaatu duha julli yoor yoor naafilatu naafila la wa kazalika naka noonu xiyaamu ramadaana taxaw ramadaan mooy naafila weeru koor naafilatun ak naafila la nee na julli yoor yoor lu ñu fonk la muy naafile gu bari tuyaaba ba tey julli ñu julli ci weeru koor ci guddi ga muy naafile weeru koor na xeet naafile yu ñu sopp la yu bari tuyaaba wa fii nekk na ci moom fadlul ngëneel kabiru luy aji rëy nga xam ne wa man xaamahoo ku ko taxaw imaanan ngir gëm waxti saaban ak ngir sàkku tuyaaba xufira kon jéggaleef la ñeel ko maa la nga xam ne taqaddama jiitu na min zambihi ci bakkaaram nee na naafilay weeru koor bari na nga ne lool ku ca taxaw sax na nga ca war a taxawee te yàlla tax ñu jéggal la la nga weesu ci ay bakkaar wal xiyaamu taxaw mina layli ci guddi ga fii ramadaan ci ramadaan wa xayrihi ak lu moom mina nawaafili bokk na ci naafile yi almuraqabi ya duñ xaymem loo fiihaa ci ñoom ba tey nee na jóg rek ci guddi gi di naafila moo xam ci weeru koor la moo xam du ci weeru koor bokk na ci naafile yi ñu taamu lool lool bokk na ci i bari nga ne lool wasalaatu jullee ala mawtal muslimina ci way faatu yu jullit ña faridatun farata la yaxmiluha jot dana ko yanu man xaama ko taxaw bi ca moom wa kazalika naka noonu muwaaraatuhum seenuk suturaal bi def ni ci ak sóol nee na jullit ñi ku ci faatu ñu jullee la yàllay suul boole ca yooyu yaar yëpp mu jullee ga ak suul ga lu ca nekk fardu kifaaya la bu ci ñenn ña taxawee ñi ci des seen jaan wàcc bu ko ñëpp bokkee seetaan nag ñëpp bokk am bàkkaar waxus luhum seen cangaay ñoom ñi faatu sunnat ni sunna la waajibat ni si suñ feddali loolu nag moom dëgërut daa wax ne sang ab jullit bu faatu sunna la suñu feddali waaye wax ji gën a wóor mooy moom it fardu kifaaya la xam ne jullit bu faatu daal moom sang ga ak sang ga ak jullee ga ak suul ga yëpp ñoo yemoo lu ci nekk rek fardu kifaay la wa kazalika naka noonu talabul xilmi sàkku xam-xam faridatun farata la xaamatun judi aji matale yaxmiluha jot dana ko yenu man xaama ko taaw bihaa ca moom illaa maa ndare la nga xam ne yelzamu dana war arrajula waaja fii xaasat nafsihi jagleeg boppam nee na sàkku xam-xam day ñaari wàll li nga xam ne moom moom nga mënta ñàkk xam ci sa mbirum diine ak sa wàllu àdduna nga taxaw teemi ci xam ko boo ko xamul laaj ko koo xam moom farata la ci jenn jëmm ju ne xam loolu moom faratay jëmm la muy fardu aynin topp nag xeeti xam-xam yi lislaam yi ba géeju ci bu baax a baax ba mën cee xeet li doomi aadama yi lu waaye umpule ñëw nga taxaw ko ca leeral ko ko loolu moom fardu kifaay la bu ko ñenn ñi defee rek mu doy waaye nag bu ko ñëpp bokkee bàyyi itam ñëpp bokk am bakkaar wa faridatul jihaad yi faratay jihaad xaamatul aji matale la yaxmiluha dana ko yenu man xaama ku taxaw bihaa ca moom illaa an yaxsha gare bu dafa dikkal alxaduwu noon ya maxalla taxaw min béréb aw nit fa yajibu kon dana war fardan mbir mu muy farata xalihim ci ñoom xitaaluhum xeexanteeg ñoom ida kaanu ndem nekk nañu mislay xadadihim di ñaar cap seenu lim nee na jihaata yéefar yi bu fekkee ne dañuy yaatu lislaam rek waaye ñoom songuñu lu noo bëgg lislaam yaatu rek kon wëlbatigu jihaata ñoom ndax yëkkati lislaam fardu kifaaya la bu ci ñenn ña taxawee rek mu doy doo ajowo ñëpp dem waaye nag bu fekkee yéefar yi ñoo song bérébu jullit moom ña fa nekk suñ mënee dékku yéefar ya day daal nekk farata ci ñoom ñu taxaw temm ci jàppanteeg ñoom ba delloo leen gannaaw su fekkee ne mënuñu ko ñu sus ñoom di ay jullit war leen caa jàppale bañ delloo yéefar yooyu gannaaw xam ne bu yéefar njëkkee song moom wëlbati ko xeex ak ñoom ba delloo leen gannaaw farata la ci ñëpp ñëpp moo xam kooku day góor moo xam kooku day jigéen moo xam kooku day gor moo xam kooku day jaam ndegam jullit la daal moom ndegam jullit la daal moom war naa taxaw temm ci xeex ak yéefar ya ba delloo leen gannaaw su yàlla dogalee nag yéefar ya ñaar ca lu képp yem ca mbaa sax mëtuñu ñaar ca kon jullit ñi dana araam kenn di xeex ba yàgg muy daw ku ci daw rek da nga am bàkkaar bu rëy rëy te na ko alxuraan waxee dafa dis lool wa man yuwallihim yawma isin duburahu illa mutaharrifan li xitaalin aw mutaxayisan ila fiatin faqad baa bi gadabin min allahi wa mawaahu jahannam wa bisal masir loolu dafa diis waaye nag bu fekkee yëfar yi ëpp nañu ñaar ca moom ku daw itam doo am bàkkaar ca daw ga war ribaatu faandu fii suxóoril muslimina ci bunti ragal yi jullit ña wa sadduhaa ak sakk bunti yooyee wax yaatatuhaa ak seenu peeg peeg mooy wattu ga waajibun warugar la yaxmiluhoo wow dana ko yenu man xaama ku taxaw bi ci moom ba tey nee na jullit ñi fañ ragal yéefa yi songe leen fa ak poste bu mën doon maanaam buntu bu mën doon rek faaw war na am aw jullit ñu fa taxaw sàmm buntu boobee ba kenn du fa jaar ñu lor jullit ñi loolu fardu kifaay la faa war naa am ci ñu taxaw temm ci jullit ñi ci fa jullit ñi ragale ku leen fa songe ñoom ñu taxaw fa di ko aar ba dara du jàll si di lor jullit ñi loolu fa war na am ñu taxaw teem ci def ko wa sawmu shahri ramadana woor weeru ramadan faridatun farata la woor weeru koor farata la mu bokk na sax ci ponk lislaam yi wal ihtikaafu lihitikaaf naafilatun naafila la lihitikaaf naafila la goo xam ne dañ koy dollandikoo rek ngir sàkkutu yaa bi waaye warut wata na fulu naafila bi saw mi ci koor mu raxabul lu ñu xemem loolu fii ci moom woor rek ngir yàlla te fekk koor ga waru la loolu lu ñu sopp la lu ñu taamu la wa kazalika naka noonu saw mu yow mi xaasura woor bi sub xaasura wa rajabin ak rajab wa shahbaan ak shahbaan wa yow mi xarafata ak bisub xarafa wa tarwiyati ak bisub tarwiya bokk na ci woor yi ñu sopp yow mu xaasura mooy bisu fukkil tamxarit ak sax bisu juróom-ñeenteel ba it sopp nañu ko ko woor weeru rajab itam sopp nañ boo ko mënee nga woor lépp lépp weeru baraxlu itam noonu sopp nañ boo ko mënee nga woor lépp lépp weeru tam xarit ba tey noonu boo ko mënee sopp nañ nga woor lépp lépp tam xarit wa bisu arafa mooy bisu juróom-ñeenteel ci weeru tabaski sopp nañu ko ko woor yow mu tarwee itam mooy bisu juróom-ñetteel ba ci weeru tabaski sopp nañu ko ko woor wa sawmu yow mi xarafata woor bisu arafa li xayril xaaji ñeel kudul aji aj afdalu moo gën nit ci moom lil xaaji ñeel aji aj daa wax ne bisu arafa sopp nañu ko ko woor ci bu fekkee nekkoo di aj waaye bu fekkee dangaa nekk di aj moom du ñu taamu nga woor ko ndax dañuy bañ nga xaw a néew doole ba na nga war a taxawee ci aj ga toog man bu baax wasakaatun xëy ni asakay kee wal xars ak mbay wal maasiyat ak ndoxteef mbaa nga ne jur faridat farata la ba tey wurus ak xaalis mooy kee ak mbay ak jur génn ci asaka ca ba matee nisaab ca kaw sarte ñu waxoon bokk na ci ponk lislaam yi wa zakaatul fitri murum koor sunnatun sunna la faradaha sos dogal na ko rasulullah yonante yàlla bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam murum koor yonante bi moo ko dogal waral ko ci xeetam wi tamaasale ko ñëpp ñëpp wa hajjul bayti aj néeba faridatun farata la wal humratu humra sunnatun sunna la waajibatun si duñ feddale aj màkka benn yoon farata la ca kam war mooy koo xam ne gor la mu kàllaf la te mën na ko boole ci umra nag benn yoon sunna su dëgër la boo xasee umra benn yoon umra boo defati mu luñ sopp waaye du àgg ci sunna wa talbiyatu wax la bayka sunnatu sunna la waajibat ni suñu feddali wax la bayka sunna su dëgër la waaye dañ cee boole di waru gar nga xam ne soo ko bàyyee am alamaan wan ñu yettu yéene bil xaj ci aj ga faridatun farata la yéene aj ga mooy armal moom ponk lay sax ci aj mënta ñàkk wa tawaafu wër lil ifaada si ñeel ifaada faridatun farata la tawaaful ifaada moom bokk na ci faratay aj yi mënta ñàkk wa sax yu dox ga bay na safa diggante safa wal marwati ak marwa faridatun farata la dox safa ak marwa ba tey bokk na ci faratay aj yi wa tawaafu wër ba al muttasilu bay aji jokk bi ci moom waajibun aji war la wër ga nga xam ne mooy jiitu dox safa ak marwa wala ñu wax tawaaful xudduum wërub ku door ak si màkk koy wax wërub siyaare moom nag waru gar la soo ko bàyyi am alamaan waaye du tee aj gi wér wa tawaaful ifaadati tawaaful ifaada aakadu moo gën a feddaliku minu ci moom daa wax ne tawaaful ifaada moo gën a feddaliku tawaaful xudduum waaw ndax tawaaful ifaada moom farata la te tawaaful xudduum warugar la woo xam soo ko bàyyee alamaan mën na koo wecce wa tawaafu wër ga lil wadaaxi ngir tàggu kaaba ga sunnatu sunna la wër ba ngay wër boo ni bëgg a ñibbisi di tàggu kaaba gi sunna la wal ma biitu fanaan bi minan ci minan laylata yow mi xarafata ci guddi bisu arafa ga sunnatu sunna la fanaan minan jóge fa nag door a dem arafa ji suba sa waaw loolu sunna la waaye ku ko bàyyi itam du tax dara war la ca wal jam xu boole ga bi xarafata ci xarafa waajibun aji war la boole tisbaar takkusaan foofee ci arafa waxam na ko ci gannaaw da ko baamuwaat rek waxam na foofu ne sunna la tuddiwaat ko fi waru gara da ko baamu rek wal wuqufu taxaw ga di xarafata ci arafa faridatun farata la taxaw arafa moom bokk na sax ci ponki aji mënta ñàkk mën nga koo tudde farata wa mabitul musdalifati fanaan musdalifa sunnatun sunna la waajibatun suñ suñu feddali fanaan musdalifa da koo tudde sunna suñu feddali waaye dañuy wax ne wàcce gu musdalifa moom mënta ñàkk warugar la su fekkee da ngaa romb rek jàll wàcce wu musdalifa da nga am alamaan wa wuquful mashharil xaraami taxaw ci al masharul xaraam ma moorun lu ñu digle la bisi ci moom boo bàyyi ko boo jullee suba ca mustalifa nga ñëw taxaw ci al masharul xaraam ba jant bi bëgg a fenk loolu taamu nañ ko waram yul jimaar yi sànni jamra ya sunnat mu sunna la waajibat mu suñu feddali sànni jamra yi da ko tudde sunna waaye warugar la boo bàyyee jamra yi mbaa nga bàyyi ci boo bàyyee jamra yëpp mbaa nga bàyyi ci benn rek am alamaan wa kazalika naka noonu alxilaaxu watu watu ca fañ la ko digale mbaa jemp moom it daa bokk ci warugar yi doo ko bàyyi am alamaan wa taqbiru rukni foon ponk ba sunnat ni sunna la waajibat ni suñu feddali dafa jublu booy wër kaaba gi yoon wu njëkk wa nga foon ca alxajar al aswad wala wax naa sunna suñu feddali la yoon yi ci des nag moom nga jàdd foon doj wa ndegam mën nga ko luñ soppal waaye agul ci sunna wal xuslu ca ngaay la lil ihraami ñeel armal ga sunnatu sunna la waru kooxu julli inda ihraami fa armal ga sunnatu sunna la te ngaay la ngay sangu wala nga armal te ñu bëgg armal ga sës ca fa saasa te ngaay loolu sunna la nga julli itam wala nga armal armal gi topp ak julli ba tey lu ñu sunnaal la lu ñu taamu la waxus lu xarafata ca ngaayul arafa sunnatu sunna la ca ngaay li nga xam ne moom la ajkat bi di sangu balaa taxaw arafa bu dee bëgg a taxaw arafa daal lay wax sunna la wax ji gën a wóor nag mooy lu ñu sopp la te bala nga koo def na fekk tisbaar dugg wal xuslu ca ngaay la li doxoo li màkkate ngir dugg màkk mustahab lu ñu sopp la da ko baam waaye waxam na ko wasalaatu julli fi jamaahati ci mbooloo afdalu moo gën min salaat li tas ci julli kenn bi sapin juróom-ñaar waxi sinaan ñaar fukk daraja tan ci daraja dina jullee ci mbooloo moo gën julli yow dong gën na ko lu toll ne ñaar fukki dégg rek juróom-ñaar benn net li ba ne ñaar fukki xaaj juróom wasalaatu jullee fil masjid xaraam yi ci al masjid xaraam wa masjid rasuli ak jàkka yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam saldan ci kenn dong afdalu moo gën mine salaatu ci julli fii saa iril masaajid yi ci mboolem jàkka yi yana boo jullee yow dong ci jàkkay kaaba ga mbaa jàkka yonent bi du tee mooy ëpp tuyaaba boo jullee woon ci jeneen jàkk tamuy mbooloo nga julli menn yow dong nag ci jàkkay kaaba ga mbaa jàkka yonent bi mooy ëpp tuyaaba nga julli woon ànd ak mbooloo ci jeneen jàkk ju bokkut ak yooyu yaari jàkka waxtu yi fa wuuteef na fii miqdaari tadhifi ci kem ful ga wala ci kem yokk ga bi daalika ci loolee baynal masjid xaraam yi diggante al masjid xaraam wa masjid rasuli ak jàkka yonante bi alayhi yàlla na doole nekk ci moom asalaatu dooli teral wasalaam ak dooli wóolu wala muxtalaf te wuutee fut ne am na salaata naka julli fii masjid rasul jàkka yonante bi sala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam afdal moo gën min alfi salaatin ci junni julli fii ma siwaahu ci judul moom wa siwal masjid xaraam yi ak judul masjid xaraam leen masaajid ci mboolem jàkka yi dañoo wute ci julee ci jàkka yi kaaba ga ak julee ci jàkka yonante bi lan moo ci ëpp nekk tuyaaba ne sax maase nañ ci ne julee ci jàkka yonante bi moo gën julee ci yeneen jàkka ju bokkut ak kaaba ga gën na ko junni yoon kon daal nee nañu boo xasee génne jàkkay kaaba ga teg fee jullee ci jàkk yonante bi mooy gën jullee ci yeneen jàkk lu mat junni yoon la koy gënee li wute nag mooy jullee ci jàkkay yonante bi ak jullee ci jàkkay kaaba ga lan moo ca gën wa ahlul madinati waa madina yaquluuna dañu wax ne inna salaatu naka julli fii jàkkay madina afdalu moo gën mina salaatu ci julli fil masjid xaraami ci al masjid xaraam bi doon alfi ci lu yeesu junni waa madina dañuy wax ne jullee ci jàkka yi yonante bi fii ci madina moo gën jullee ci jàkk jooje ci kaaba ga waaye nag lam ko gënee mu tut junni yoon xëy na mu tolloog juróom-ñaari téeméeri yoon waaye agul ci junni wuute bi dëgg-dëgg rek dafa am ci diggante kilifa yi ndax bu dee Malik ak ñi ànd ak moom dañuy jàpp ne Madina moo gën Makka al imaamu Shafii yi ak ñi ànd ak moom jàpp ne Makka moo gën Madina bu ñëwee ci jàkka yi Malik moom ak waa Madina dañuy jàpp ne jullee ci jàkka yi Madina moo gën jullee ci jàkka yi al masjidul haram muy jàkka ji ca Kaaba ga waaye nee nañu am na riwaaya boo xam ne ak Tirmisi ak Ahmad ñoo ko nettali te ibnu Xibbaan ak ibnu Abdil Bar dëgëral nañ nettali boobu nettali boobu daal day wane ne jullee ci jàkkay kaaba gi gëne na julli ci jàkkay yonante ba téeméeri yoon téeméeri julli nettali boobu dane wa salaatun fil masjidil xaraami afdalu min salaatin fi masjidi haza bi mi ëtti salaatin boo toppee net li boobu moom du amati genn wuute ne jullee ci jàkkay kaaba gi moo ëppee tuyaaba julli ca jàkkay madina ja téeméeri julli wa haza li kulluhu léppam fil faraidi mooy bu dee ca farata ya wa aman nawaafilu ndaal naafile yi fafil bi yooti def ko ci néeg ya aftalu moo gën nee na li lépp nag bu dee farataa tax ñuy wax waaye bu dee xeetu julli naafila moom defe ko ci néeg moo gën defe ko ci jàkka wattanafulu naafila bi rukkoo ci julli li ahli màkka te ñeel ñu màkka ahab moo gën a sopp dinaa jëm ci nun mina tawaafi ci wër kaaba ñu dëkk màkka nga xam ne dañoo dëkk kaaba ga am tawfiix yi wër ko da leen yomb ñoom mën nañoo baril naafilaay ci ràkka xam ne bari naafilaay ci ràkka moo gën ci ñoom ndax saa yu ñuul bati ko rek gis kaaba ga mën koo wër wa tawaaf waaye nag wër ga ina war a bàyyi ñal doxandeem ya ahab moo gën a sopp yooyu naa jëm ci noonu dina rukkoo ci julli li xillati wujjooti saalika ngir néewug amug loolee laxum ñel leen waaye nee na nag bu dee ku ñëw màkk di fa doxandeem rek xam ne ngay ñibbi te boo xasee ñibbi doo amati kaaba goo wër kon yow loo nar a naafila nga def ko wër kaaba moo gën nga def ko ay rakka ndax boo xasee ñibbi rek am kaaba goo wër day daal di jafe kon nag bari sa wër moo gën bari say rakka wa min al faraidi bokk na ci farata ya xaddul basari damm gis ba xalil maharimi walis yu araam ya dina bokk na ci farata yi te jullit bu ne war caa ga boppam mooy sàmm say bët bañ caa xool loo wërta xool walaysa fi nadrati dér muy nekk ca xool ba al ula bay aji jëkk bi xëyri taxamudin ci lu tey ci lu dul tey xarajun bakkaar nee na boo jekkee-jekki xool rek say bët dal ci loo xam ne waris koo xool nga daal di bàyyi fa saasi saasa bañ koo xoolaat loola doo ci am bakkaar waaye nag boo jàllee xool nag daal di am bakkaar ca jàll ga nga jàll xool wala fi nazari du caageenu ci xool ga ilal mutajallati jëm ci màggat mu jigéen ba tey màggat mu jigéen moo xam ne góor ñi ajootuñ ko xool ko amul bakkaar wala fi nazari du caageenu ci xool ga ila shabati jëm ci waxambaane wu jigéen li xudurin ngir ngànt min shahadatin ci seere xaleyha ci moom wa shibhi ak nduróog moom ba tey nee na ndaw lu jigéen mën nga koo xool ndegam ngànt ko waral niki danga koy seere ci ñu koy may jëkkër mbaa muy jaay ko jëlante nga di ko xool ngir xàmmee ko ci bu ëllëgee bu loola matee seere nga doy ca seere xam ne kii la woon dara nekku ca ba tey boo dee docteur bi faj ñu indi ndaw lu jigéen la nga di ko faj kon lu tolloo fa ngay faj rek nga xool foofa yem ca dara nekku ca waxat urxisa yola ma leef na fii daalika ci loolee lil xaati bi ñel aji labat daal la may boo bëggee takk jigéen nga xool kanamam ak ay téngam bëgg nañu sax nga bañ a jekki-jekki takk kenn te fekkul nga gis jëmm ja maanaam xool kanam nga ak téng ya loolu daal la gën mooy bala ngaa takk kenn rek lu néew néew nga dem ba gis kanam nga ak téng ya wa minal faraid yi bokk na ci farata ya saw nu lisaani ñoŋal làmmiñ wa anil kasi bi walis ten wal zuuri ak neen wal faxshaay ak aw ñaawteef wal xiibati ak jëw wal namimati ak rambaaj wal baatili ak neen kulli yi léppam ne bokk na ci cër yi ñu war a sàmm bu baax a baax làmmiñ nañ ca moytoo wax lu amut loolu mooy fen nañ ca moytoo seere neen mooy seere loo xam ne wóoru la donte faral dëppoog la amit waaye ba nga koy seere yow xamoo woon ne mooy la am loolu araam na faxsha ji wax nag mooy lépp lu araam rek ci wax mbaa jëf rek dafa taw ci làmmiñ rek waaye kon lépp lu araam wax rek na ko moytu ci làmmiñam rawantina jëw jëw moom day lu yomb lool te islam bañ ko lool muy wax ci ku fi nekkul loo xam ne su ko déggoon du ko neex te fekk sax loolu am na waaye moom bu ko déggoon du ko neex loolu ëpp naa def la mu ca teg muy rambaaj mu gën a doy waar ndax moom daa mën a yàq lool diggante nit ñi ñu noonoonte kenn ku ne du muy sa moroom rambaaj nag mooy jële ay wax ci kii dem nettali ko keneen ndax bëgg a yàq seen diggante doon ci sax jubluwoo ci yàq waaye yàq mën na ca am rek loolu ëpp naa def lépp loo xam ne rek buñ ko siiwalee mu indi yàq rek loola ëpp naa siiwal lépp luy xeetu caaxaan rek mooy lépp loo xam ne xeetu wax la woo xam ne amul tuyaaba rek na ko jullit bi moytu rawante na nag muy lu araam mbaa muy luñ sipp xaale waxoon na ar rasul yonante bi alayhi salaatu wasalaam man kaana ku nekk yu'minu diggam billahi ci yàlla wal yawmi ak bis ba al axiri aji mujj fal yaqul nay wax xayran aw yiw aw li yës mu te mu noppi ci lu bokkutu yiw yonent bi nee na woon képp koo xam ne gëm nga yàlla gëm ne bis penc ci dana ñëw looy bëgg a wax nanga ko seetlu bu dee lu baax lu am tuyaaba nga wax bu fekkee nag du loolu nga téye saw làmmiñ wa xaale waxoon yonent bi alayhi salaam min husni islaamil mar'i bokk na ci rafetug lislaami cam sa tarkuhu bàyyeem nga maa lépp loo xam ne laa yaanihi du ko jariñ yonent bi nee na woon bokk na ci li tax sa lislaam rafet lépp loo xam ne du la jariñ moo xam wax la moo xam jëf la rek nga bàyyi ko sori ko wa xarama araamal na allahu yàlla subhanahu sorel naa ko lépp lu yollu ci moom dima al muslimina dereti julit ña wa amwaalahum ak seeni alal wa anraadahum ak seeni der illaa bi xaqiha dara ci seen àq yàlla daa araamal sa mbokkum julit ngay tur deretam te jadlu yoon mbaa ngay laal alalam te soñoo ko mbaa nga yàq ab deram ci genn wet ab julit daal moom des ko war a ormaal ormaal deretam ormaal alalam ormaal ab deram bañ yàq ab deram lu may nag daa jàdd yoon bu jàddee yoon nag yoon moo koy awale ci yoon wa su boobaa loolu tuyaaba lay doon moom wala yaxilu du dagan damum ri in dereti ascam muslimin ku di ab julit illaa an yakfura dara bu dafa weddi baax da imaani yi ci gannaaw gëmam nga aw yes ni wala muy jaaloo baax da ihsaani yi ci gannaaw sengiwoom nga aw yaqtula wala muy rey nafsan bakkan bi xayri nafsin ci dul bakkan aw fasaadin wala ak yàq fi mu àdd ci suuf yàq ci suufu mooy def rugoo ga waxoon àddu kalpe aw yamruq wala muy fël mi ne diine ci diine fël ci diine mooy génn ci diine maanaam fas pas-pas boo xam ne ñu topp seeni bànneex ñoo koy fas ci diine te mujj yoog pas-pasu diine ju sell daa wax ne jullit moom day tax ñu sañ koo rey mooy mu murtat nekkan ci islam ba yàgg mu wax mbaa mu def lu ko ci génne mbaa mu njaaloo te fekk mu sëngewu mbaa mu rey bakkan ñu topp ko war a fay ci moom rey ko mbaa mu def li ñuy wax addu kalbe dog yoon yi ku fa taxaw mu kar la bëgg jël sa alal mbaa boog mu jekki-jekki pas pas pas boo xam ne dafa safaanoon teg diine ndax kon loolu murtad lay doon yooyu mooy waral ñu sañ a rey ab julit waaye lu bokkut wal takuf fa na nga fekk ya dakk sa loxo xamaa walis lépp loo xam ne laa yaxelu du dagan lakka ñeel la min maalin ci alal aw jasadin wala aw yaram aw damin wala deret nee na lépp loo xam ne léewu la rek muy alali jaambur mbaa yaramu jaambur mbaa dereti jaambur na nga ko sori nga moytoo laal alali jaambur mbaa yaramu jaambur mbaa tuur dereti jaambur wala ta sax bul dox bi xadamay ko ci siyaari ndëggu fii maa ji loo xam ne laa yaxilu du dagan lakka ñeel la wala tubashir bu jonjonte bi far jëkk ci sa pay aw bi shay'in wala ci dara min jësa jëkk ci saw yaram maa loo xam ne laa yaxilu du dagan lakka ñeel la bala ngaa yëkkat say tànk jëm fenn na nga seet ba xam ne li ngay bëgg a doxi loo sañ a dox la